ñi fi nekk di nuyu suñu grand yi suñu morom yi suñu papa yi. mënuñu waxaat leneen lu weesu suñu grand yi lu ñu wax ak suñu frère Boña lu wax ñoom Papa Sow nekk suñu grand frère lu ñu wax ñun mënuñu wax leneen man damay wax ne di wax ne Boña man yow laay waxal di lay wax ne lii nga def. nit mun naa am ay junni junni junni junni junni daraja te du def lii nit mun naa yor lu dul jeex te du def mais lii bu amee ñun dañoo war a wax li nga xamante ne tey mooy li nga xamante ne moo ñu tax a jóg mooy métit maanaam fu mu méttee fu mu méttee ñun nañ ko ñun jafe-jafe bi ñu gën a am xam nga ngeen wax si làmb wax ngeen si làmb ba pare te li ngeen wax si làmb ñun buñ si jaaraale day nekkaat loo xam ne dañ ngay répété Baye Mandione mu ngi doon wax sànq mais lu muy waxe moom xool lay waxee parce que buy waxee xol moom mun na wax sa tujaange parce que moom xolam lay wax ragalul kenn dëgg lay wax mais tey xam nga dëgg boo ko jëlee suukar ko ba mu saf nga joxo ni ki da naan ñun loolu la ñuy def man côté bi may waxee mooy jeunesse bi jeunesse bi waxuma làmb de man damaa romb làmb mooy nit ñi ñu dañoo dëgg si banlieue fi nga xamante ne foofu la coono tàmbalee man damay yeewu ay nit taxaw sama buntu kër barke alxuraan damay war a ndékki damay bàyyi sama ndékki jox nit mu ndékki lu tax ma koy dund man mun naa ko mais est-ce keneen mun na ko nit ñi liggéeyuñu nit ñi amuñu da ngay jàkkaaroog sa yaay mu soxla junni nga koy xool nii te mënaloo ko kooku nga dem si géej gi xaru dee sax moo la ko gën a nañu état jàppale nañu état jàppale ñu nekk ay noonam ñun ñoo koy xeexal pour mu jël réew mi moom bu soxlaa lu baax si ñun lay ñëw kon tey ñun bu ñu soxlaa suñu kàddu am lu ñu metti am loo xamante ne mooy suñu rongoñ di xonk da ngay jàkkaarloo ni man waxal man damay dem ba sax damay jëlale làmb billaahi yàlla dong moomu tim donte xale laa ndax man damay gis koo xamante day teg cinam du si am dara lu si def te am ay ñett doom ci biir kër gi mais kenn liggéeyul da ngay xëy ni ngay xëy noonu ngay wàcce mais 1000 francs yooyu nga def transport pour dem sax yow boo sañoon yow nga joxe ko dépense ba ñu xëy toog si kër gi nañu jàppale nañu état jàppale nu ñuy jàppalee nag mooy ndaw ñu liggéey mooy ñi am xel ñi am xel mën a dimbali keneen ak keneen ak keneen ñu jàppale ko xelam boobu jariñ keneen ak keneen ki am doole ñu xëcc ko ñaata hectare ñu nekk si àll bi ay tubaab ñoo koy jariñoo ñoom lañ koy jox ñu ñëw fii jël suñu emploi da ngay gis yoo xam ne dañuy ñëw si biir dëkk bi fii nii gis koo xam ne day ñëw investir jóge siin wala feneen ak feneen ñëw investir jël suñu kàttan di koy liggéeyee di waree fay dix mille francs di ñu fay ay mille cinq cent te ñun suñu nijaay wala suñu mbokk moo ko ñii ay dof lañ boo leen fayee mille cinq cent ñu liggéey parce que dañuy liggéey ndax gisuñu dara président jàppale ñu boo ñu jàppalee sa bopp nga jàppale boo ñu jàppalee sa njaboot nga jàppale xamal li gën a am sax ci àdduna mooy ndaw ñi mujj juddu bu ñu waxee boole la ci boo fi demee ñu bàyyi fi sa empreinte kon ngalawaay ñun suñu avenir moo ngi nii sa loxo jox nañ la ko ñun jox nañ la suñu lépp parce que alxuraan man xol laay waxee man soxlawuma dara mais li ñuy gis bëgguma ko gis président dimbali ñu bu dee góor na góor góor góor na yow dimbali ñu. boo ñaan li wax dafa naa wax dëgg yàlla man mi wax yéen c'est la première waaw vraiment ñoo ngi félicité euh, booy Niang numéro 2 tey acte bi mu posé acte leadership dëgg la wax dëgg yàlla dajale mbëru Sénégal yëpp parce que tey jii boo seetloo. manque de respect notoire bi nga xam ni moom la moom la ñuy exercer ci kaw lutteurs yi ñoom ñoo ko mën a fajal seen bopp mais maa ngi koy xamal ni Parcelles Assainies Modou Lo ñëpp ñu ngi ci ginnaawam bu fa Papa teewee lu mu fa wax ñun ñëpp la waxal Tapha Mbeur bu Rock Énergie teew na fa ñun ñëpp la waxal di ko wax rek lii mu defit jubalee entre euh, Lac de Guiers numéro 2 ak euh, frère am Eumeu Sène fay lakk loolu la leader di def na ko mbëru Sénégal yëpp roy te di wax ni bu ñu regroupé le 100 pour cent parcelle 100 pour cent géejawaay 100 pour cent Pikine lu ñu bëgg mën nañ ko am te ñoo ngi ci am incha allahu rabbi donc euh, mon frère je te félicite et je t'encourage ñoo ngi sa ginnaaw.